jëm ci wàllum agriculture bëri na ay ndaw yoo xam ne mën nañu fa liggéey journal bi di réew mi quotidien nee na ca forum boobee ministre bi ñu dénk wàllum économie ci réew mi di Oulimata Sarr ma nga woon ca forum ba niki démb daan nay wax ne thème bii nga xam ne moom la waa MEDES sànn mu jëm ci wàllum mbay meeg xale yi nan la def ba ñu ci am ci liggéey xale yi la ñuy def ba ñu am ci liggéey loole lu am solo la te lu méngoo la ak vision président Macky Sall mi nga xam ne souveraineté alimentaire la woote modernisation ci lu jëm ci wàllum élevage ak wàllum napp gi moom Oulimata Sarr daan nay wax ni ñi nga xam ne ñooy waa MEDES ak président Mbagnick ñoom jamono ji ñoo ngi def seen rôle maanaam ñoo ngi def seen waru gaara ci lu jëm ci mi nga xam ne mooy njiitul au conseil du dialogue social daal di koy dëggal ci biir journal bi bu baax a baax bi nga xam ne njiitul MEDES amee na ko lu jëm ci ndaw ñu am liggéey ba tey ci biir journal bi di Rewmi Quotidien moom Innocence Tam Ndiaye daal nay wax ne MEDES ak forum bii nga xam ne ñoo ngi koy amal loole nag dafay tax maanaam ñu mën a créer ay conditions yoo xam ne ndaw ñi danañu mën a am liggéey forum du premier emploi loole dina mën a améliorer li nga xam ne mooy fonctionnement di marché du travail yéen kaay gi di Rewmi mi quotidien njiitul MEDES di président Mbagnick Diop démb sa forum ba daan nay ñaax ñi nga xam ne maanaam ñooy ndaw ñi ndax nee na ci réew mi ndaw ñi ñoo fi ëpp te nag ndaw ñi war nañu see jéem a xar sunu tànk tubéy ngir ñu am liggéey te nag ngir ñu am liggéey lu jëm ci wàllu mbay mi daf cee mën a jouer rôle bu am solo rawatina wàllu modernisation entreprise agricole yi ak agroalimentaire daat nay wax ne ndaw ñi mënuñu leen a ñàkk bañ a accompagner thème bi nag thème bu mi maanaam xale yu bare bari mën nañu see liggéey métier yi te moom président Mbagnick daal mu daal di suqaliku ndaw ñi nañu leen jàppale ndaw ñi nañu leen accompagner Ouli Mata Sarr nee na convention état employeur lu toll ci téeméer ak juróom-ñaar fukk ak juróom-ñaar ci convention yoo xam ne la mu créé ci emploi toll na ci quatorze mille cent cinquante emploi maanaam fukk ak ñeenti junni yu fegg téeméer ak juróom fukk yoo xam ne maanaam convention état employeur yi kere na ko journal bi di source ak xëy duñu xibaar naan ñu cour des comptes fan yi nga xam ne moom la ñu génn def na ab rapport ci fond covid 19 yi mu jur coow lu bare bare waaye nag sénégalais yi cour des comptes 2018 2019 maanaam def nañu ko ba pare te nag loolee moo gën a garaaw impression rek moo si des maanaam tiire ko moo ci des rapport 2018 ak 2019 pare na bu rapport cour des comptes bokkul sax nag ak bu fond covid 19 bi journal bi nee na coow lu bare bari nar na koo jur ci réew mi yéen kay gi di réew mi ko di jeex duñu xibaar naan ñu rapport cour des comptes bi léegi tey daaj yi ak ministre yi nga xam ne ñoom lañ tudd maanaam ñu commencé di jaaba jonge ci kanamu enquêteurs yi ca dig division des na ak kuréel la ñu teg waaye nag kuréel goo xam xam ne maanaam ay enquêteur yu seen xel màcc ci jëm ci wàllum finance ñoo fa nekk ñoo fas ne déglu daas yi ak ministre yi yéen a kaay gi du l'observateur nee na lu jëm ci ministre yi nga xam ne nar nañ leen a convoqué am na ci ñoo xam ne ñoo nga ci danger journal bi de la Tribune na lu jëm ci rapport Cour des comptes bi am na ministre yoo xam ne jamono ji maanaam pare nañ ngir remboursé ngir nag moytu li nga xam ne mooy kasoon ndax ñi nga xam ne ñooy daas yi duñu nangu ñoom rekk ñu leen di sànk yéen a kaay gi de la sëqëy duñu xibaar naan ñu njiitul Pastef di Ousmane Sonko démb ma ngi woon ca diwaanu Parcelles Assainies Ousmane Sonko nee na ginnaaw Médina Mbàkke bi maanaam danañu amal ay manifestation ci biir réew mi yëpp ak ci bitim réew ndax Ousmane Sonko nee na Macky Sall ak jaay doole gi nga xam ne moom la nekk ci réew mi loolee la ñu xamul lan mooy ndayam moom Ousmane Sonko nee na gars yi ko bëgg a éliminer ci élection présidentielle 2024 waaye nag nañu ko tàyyi ginnaaw Médina Mbàkke bi danañu amal ay manifestation te moom Ousmane Sonko nee ndaw ñi pare le moom njiitul Pastef maanaam tàppet la ab ragal la ku wër te wax rek mooy wax te man xam na Amadou Ba bu baax a baax jamono ji maanaam bu yoon amul ci réew mi Amadou Ba ma nga kanamu tribunal ya maanaam di indi ay leerale ki firndeek milliards yi nga xam ne maanaam moom lay yore kaddu yi Ousmane Sonko la nee na nag ñoom waa Benno Bokk Yaakaar fan yi ñu génn amal nañ seenu mitin mitin boo xam ne dañoo fay ay xale ngir ñu mën a ñëw ca mitin ba yéene kaay gi di libération usman na gat Sonko gatsa gatsa la woote journal bi di Walf Fadjri xëy fësal ci xët mu njëkk nee na liquidation Sonko en mars maanaam sànk Ousmane Sonko gaay ñoo ngi ci ndax plainte yu bare bari jamono ji moo gàllu ci ndodd Ousmane Sonko ginnaaw mbiri Adji Sarr ak Ousmane Sonko ak Mame am na benn policier bu tudd Frédéric Nappel boo xam ne moom tim dafa porte plainte Ousmane Sonko yéenekaay gi de Le Quotidien ak Le Soleil xëy duñu xibaar naan ñu njiitu réew mi di président Macky Sall ak tournée économique yi journal bi nee na Ceesa aye lu jëm ci ay inauguration ak ay lancement travaux ci lay Macky Sall nekk Le Quotidien ak Le Soleil ñooy wax du samay kàddu damay nettale yéenekaay gi de Enquête xëy duñu xibaar naan ñu élection présidentielle ji mën na ñoo wax ne gars yi ñoo ngi ci campagne bi ndax meeting yaa ngi mel ni tulleeg male tournée politique yaa ngi mel ni tulleeg male yéen kaay gi di Sud Quotidien xëy duñu xibaar naan ñu kër gii di Sonacos jamono ji ma ngi ci ay jafe-jafe yu métte métte yéen kaay gi di Libération du ñu xibaar naan ñu imam Moustapha Diédhiou mi nga xam ne fan yi ñu génn teg nañu ko loxo yóbbu nañu ko sa kaso ba la ñu koy toppee mooy woote fitna bëgg andi pëccëxoo ci réew mi am na fukk ak juróomi membre Pastef yoo xam ne démb am nañu retour de parquet ñi nga xam ne ñoom la ñu dugaloon ci kaso bi bokk Pastef sa Jurbel tey ji la leen di atte yéen kaay gi ne na nit dofa rappeur bi nekk ci kasu bi tey ji la ñu koy létt wala ñu firi ko Fadilou Keita bu Pastef moom ñaan na ab liberté provisoire gars yi daal di ko koy lankal yéen kaay gi de la Tribune ñu koy fekk fa Cheikh Mahi Niass nee na ab dëgg maanaam dafay respecté institution yi waaye tamit ab patriote dëgg dafay respecté askan wi maanaam population bi waaye tamit ab patriote dëgg dafay respecté kilifa diini yi maanaam chef religieux yi kaddu Cheikh Mahi Niass la ma ci la Tribune